la ñu yëkkati woon nag moo nekkoon taxaw suñu askan muy bu Kaarang muy bu Ñombaato muy bu département de funjuñ gis nañ ne nag am na ñu doon wër ci dëkk bi di wane kayit bi nga xamante ne moom la suñ coalition demee woon élection municipale di leen wax ne Abdou jàllo bii mooy xobam ba ñenn si ñoom juum dem jël kayit bi nga xamante ne moom moo def mboq bi ñu voté li nga xamante ne mooy coalition wàllu parce que ñun campagne ñu kaarang ñooñu ñu nax ràññe leen ñi leen naxoon ba bu ñëwaatee seen kër ne leen lii ak lii ci abdu Diallo ak ñamu àndal ngeen xam ne ñooñu seen bopp donga leen tax a jóg mais du kaarang du ñoom mbaatu du département de Foundiougne ñenn ci ñoom ne Macky Sall laa àndal bu ma gañee damay delluwaat ci Macky Sall jublu woon ci lenn dong mooy yàqal ñu suñu campagne am na ñu leen déglu jox leen nopp bu baax waaye juum nañ te juumloo nañ ñooñu ñun bu ñu demoon ba nar a ànd ak Macky Sall am nañ fulla am nañ fayda am nañ mat gu mel ni taxaw temm ne leen ne ñun Macky Sall moo ñu doy bi ñu waree ànd ak Macky Sall dañoo tàggu askan bi dem ànd ak moom mais bi ñu demee ba ñu xam ne Macky doyatuñu ñamu àndal doyatuñu dañu jël suñu responsabilité wan ko ginnaaw parce que jafe-jafe yi ci gox gox bi tar na dem leen dëkk bu mel ni Daasilaame benn teen la ñu fekk jigéen ñi di root teen bi tilim moo ci nekk teen bi suuf si day màbb di ci dem munuñ am robine yu mel noonu moo ñu tax a jóg te yu mel noonu moo tax ñu won président Macky Sall ginnaaw kon ñooñu doon wal Kaarang naan candidat Macky Sall la ñooñu ñu ngi yëgal population bu Kaarang population bu Ñombaatu population département du Foundiougne ñooñu la ñu bëggoon mooy nax leen ba ngeen votel leen ñenn ci yéen votel ngeen leen waaye tey ñoom demuñ ñun demuñ te ma leen di seedeel ne man docteur Abdourahmane Diallo yéen a ma yar xam ngeen sama jikko bu keneen ñëwee ci yéen di leen indil jikko bu nekkul sama jikko taxaw leen ba ngeen wala ngeen toog ba ngeen jàkkaarloo ak man waxkat bi fi muy dem tontukat ba du fa yegg te ñoom ñu xam ne dañoo ñàkk parce que ngeen nekk ay ñaata coalition e ñaata responsable politique ngeen nekk ko ci coalition jàmmaarloo ak kenn mu am 975 voix ngeen am 1204 te dajalo bi ngeen dajale munoo leen atteindre chiffre bi nga xamante ne moom ak ñamu àndaloon muy population bu Kaarang amoon na ko ci élection locale yi muy 1579 donc population bu Kaarang munuñ woon ñàkk a ñëw ci kàddu yu mel nii parce que leeral dafa am solo ñu ngi coalition Aar Sénégal ànd ceeg ay mag pare pour liggéeyal seen dëkk pare pour liggéeyal seen gox pare pour liggéeyal seen département ku ne woon maanaam Abdou jàllo bu yaakaaree ne bu gañee Kaarang mën na gañe département bi day nax boppam wala day nax askanu Kaarang moom gañe na Kaarang mais gañewul département bi demul dew ma ñamu àndal tey lan la leen di wax kooku lan lay wax ñamu àndal xañ abdu Diallo demoo ka nga àndal demut Abdou jàllo demut te Abdou jàllo ñàkk nga ñàkk ka nga àndal ñàkk loolu lu muy niro waa Kaarang politique bi gars yi yëkkati Kaarang jamono bi toll ni ak ci tund bi politique bu salte la gàkkal nit setal sa bopp gis nañ fi koo xam ne mu ngi attaqué Ousmane Sène liggéey na ak Ousmane seen juróomi at Ousmane Sène jox ko teraanga àdduna yëpp parce que munoo nekk secrétaire municipal juróomi at ànd ak Ousmane seen mosoo gis gàkk-gàkk Ousmane seen jékki-jékki ne Ousmane seen nii ak nii ànd ak gomis juróom benn at ak juróom benn weer nga doon muñ toj-toj yi gomis doon def ba yow mu des si mois nga ne démissionné nga te juróom benn at ak juróom benn weer yaa ngi xamoon toj-toj yam doon def kon sa bopp nga doon aar ak sa intérêt bopp ñun nag bi jóg jotee dañoo jóg bi jàng jotee dañoo jàng bu fekkente ne nag ñoo ñu di wax dañoo bëgg a dab ñu ngi leen di ñaan nañ dem inscrire wu ji pour mën a am seen doctorat benn bu ñu amee seen doctorat ba pare ñu fexe fi mu toll nii ñu remonter le temps ñun suñu engagement politique maa ngi engagé wu en 2014 nekk candidat pour mairie Karang amoon 259 voix bu fekkente ne ñoom mën nañ defaraat histoire nañ dellu 2014 sampaan dënd bu ñu paree ci loolu ñu ñëw 2017 2014 bi ñu amee amoon nañ 259 voix 2017 candidat laa woon élection législative àndoon ak Cheikh Tidiane Gadio nekkoon liste nationale nekkoon 13e position 5e ci parti ba ma nekkoon jox ma cër moo tax parti ba nangu maa jiital yàlla defaat ñu am 523 jaaxal ñëpp élection locale yi ñu génn ñu ànd ak wàllu am 667 voix ñuy yéeg rek wàccuñ noonu nag. di gën a jooy élection yi ñëw firndeel ne maanaam jàmm bi ak pexem yàlla ak dogalam ñu am 975 voix kon noppalu leen ngeen xam ne fii yàlla dong moo fi nekk le candidat docteur Abdourahmane Diallo mënut a daane te santut gërëmul ña nga xamante ne mooy équipe am ña muy àndal guddi ak bëccëg muy ay ndaw ñenn ñi ñu leen di tuddee élément docteur ñenn ñi nekk ay responsable politique yu mag ku mel ni directeur Yero Diallo et eh, ku mel ni Pa Noa Diouf nekkoon suñu plénipotentiaire ku mel ni Abdoulaye Ba nekkoon suñu porte parole mais aussi mention spéciale ci ñi nga xam ne ñoo yoroon micro bi muy monsieur Lamine Diouf président des élèves et étudiants du mouvement Benno Defar Kaarang mais aussi Ablaye Sock suñu chauffeurs yi da doon guddi ñu nekk ba deux heures du matin ñu nekk ci oto yi yenn temps yi heure u reer moom la ñuy añ heure añ moom la ñuy reer mu nekk nag loo xamante ne ku muñ rek moo mënoon a dëkku loolu tey nag yàlla def na li gën e ki nga xam ne gars yi dañ koy bañ a tudd ma duma ko tudd waaye ndaw si mu àndal muy madame Adama Boucounta Thior yàlla def na falu na bi mu faloo nag jël na téléphone am woo ma encouragé na ma man félicité naa ko encouragé na ko nee naa ko mu góorgóorlu kii di Pape Dianko nag liñ koy ñaan juróomi at yi passé taxawaay bi mu waroon am amu ko juróomi at yi ñu jëm ñu ngi koy ñaax di ko ñaan mu taxaw ba garage Karang bi ñu defaraat ko mu taxaw ba yoonu misira bi ñu tali ko mu taxaw ba yoonu sirmang baria ñu defar ko mu taxaw ba yoon bi nga xamante ne moo jógee Toubacouta dem Kër Saalum Diané ñu defar ko mu taxaw ba yoon bi jógee Jagle dem Touba Murit ñu defar ko mu taxaw ba li nga xamante ne mooy nappkat yi ñu am ay gaal mu taxaw ba ay tracteur am ci biir ñoom mbaato ak département de Foundiougne mu taxaw ba engrais bi di doy parce que loolu mooy rôle lu taxaw ba communes yi nga xam ne dañ war a am lycée yu tabax fa ay lycée mënuma comprendre waa dakaar am ay lycée yu doy amay ay bérébu fajukaay yu doy am ay yoon yu baax ñun département de Foundiougne mënuñ am lycée yu doy mënuñ am bérébu fajukaay yu baax mënuñ am mënuñ am mënuñ am Pape Dianko dafa war a wax ci loolu mook madame Adama Boukounta Thior donc mbop mbokki Kaarang eh, mbokki département de Foundiougne rawatina bu ñombaato ku ñu votel eh, ki ñu votelul te amoon yéene votel ñu taw bi tere ko ñëw ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm diggante Kaarang ba Samba Gueye Samba Gueye ba Nioro Alassane Tall Nioro Alassane Tall ba Kër Saalum Diané Kër Saalum Diané Toubacouta Toubacouta Niassène et am nañ kilifa bu mag bu nekk si suñu biir muy le président d'honneur Pa Diegane Samb e ñu ngi koy sant di ko gërëm uuf nañu guddi uuf nañu bëccëg gunge nañu guddi gunge nañu bëccëg wér gu yaramam moo ko maytoon mu nekk ak ñun ci oto yi waaye ay ñaanam yegg si na parce que campagne bi tàmbali nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim pare ko ci alhamdulillahi rabbil alamina ñu leen di wax ne population bu département de Foundiougne eh, dama am mbégte parce que la jeunesse muy étudiants yi dañu jóge Dakar jël seen bus ñëw ba jagle taxaw fa ñu ne le candidat docteur Abdourahmane Diallo moom lañ bëgg a fal mu nekk suñu représentant fee ci assemblée nationale parce que jeunesse bi dafa war a gis boppam donc tous ces étudiants yi nga xamante ne def nañ sacrifice boobu noonu Vieux Diouf jiite ko ak ñoom Moustapha ak ñoom Ousmane Senghor ñu ngi leen di sant di leen gërëm ne mention spéciale à la jeunesse de Karan am na ci ñoo xamante ne bi ma demee ba soxla dañu fàtte seeni parti fàtte ne bokk nañ ak diw koñ fàtte ne bokk nañ ak diw kër ne Karan moo soxla njabootu Kaarang moo soxla jeunesse boobu noonu maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen naan kenn du yéen parce que mënoon ngeen defee neneen munuma nag wax te santuma aussi ki nga xamante ne mooy Alassane Bathily dafa am coalition bu mu nekkoon munuma wax santuma ki nga xamante ne muy Seynabou Lo dafa am coalition bu mu nekkoon mais dañu jël seen mbiru coalition bi teg fële ne suñu doom suñu rakk suñu jerba docteur Abdourahmane Diallo moo soxla ñu ñëw jàppale suñu bëri nañ ci ay morom nag donc ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm sama papa Ibrahima saane di ko wax ne bi muy métti ñun la woon munuñ xaar nag ba ñu xàmb taal bi taal bi commencé boy am ñu fële fële ñëw na ci taal bi la ñu bokk donc Ibrahima saane ñu ngi attirer sa attention opportuniste yi nga xamante ne ñoo jóg nekk ci dëkk bi dina ñu fi fekk parce que dañu lancer défi defi boobu ñu lancer ñu nag ñun dinañ leen won ne maanaam ñun li ñu yitteel mooy Kaarang li ñu yitteel mooy Niombato li ñu yitteel mooy département de Foundiougne Ibrahima saane nag bi muy engagé wu ci terrain bi maa ngi bitim réew 2012 bi mu sampee bëgg a doon député Ibrahima saane mën na firndeel li may wax dama ko doon woo téléphone ne ko demal fii ak fii ma koy jàppale yàlla def na bii paa nag njuumte am na parce que am na ñoo xamante ne puus nañ ko ci yenn yi erreur la nangu naa ne erreur la mais ma koy bàyyiloo xel que ne profiteurs yi nekk Kaarang manipulateurs yi nekk Kaarang ak yi nekk ci département bi yu jara moytu lañ te défi bi ñu lancé nag dinañ xam ne lancé nañ ko koo xam ne dafa yàgg relever défi newoon nañ ne ci njàngam du arriver yàlla dimbale na ko arrivé na ma jógee bitim réew ñib si ma commencé di politique ñu ne xëy lay ut yàlla dimbale ma ma am xëy ma jóge ci loolu ñëw di politique ñu ne ma doo arriver élection bu ñëw ma bokk sama poosu bopp lay bokkee politicien joxuma xaalis keneen joxuma xaalis heure bu ñu ne du nekk rek yàlla gunge ma ba loolu nekk donc ngeen noppal seen bopp xam ne dëkk bi dëkk maam Maska la keneen ku dul maam Maska moomul dëkk bi te képp ku ñëw dëkk si Kaarang waa Kaarang nga doomu dëkk bi nga kon nañu bàyyi di am ñii ñoo fi dëkk ñii ñoo fi am cër ñee amuñ fi cër ñun njabootu Kaarang lañ njabootu ñombaato lañ njabootu département de Foundiougne lañ te nag dañu pare xeex ni ab Ablaye Wade xeexee woon pare xeex ni Mandela xeexee woon pare xeex ni Patrice Lumumba xeexee woon pare xeex ni Thomas Ta Sankara xeexee woon mais pare xeex également ni suñu kilifa diine yu baax yi xeexee woon kii nga xamante ne mooy élage Hadj Ahmadou Deme kii nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba kii nga xamante ne mooy El Hadj Malick kii nga xamante ne mooy cardinal Thiandoum ñooñu tey ay jikko yu baax ay jëf yu baax la ñu liggéeyal Sénégal ba ñu respecté Sénégal foo jëm ñun tamit tànk boobu la ñu war a am liggéeyal suñu gox muy Kaarang liggéeyal suñu gox muy ñombatu liggéeyal suñu département muy Foundiougne ba fépp fu waay mënta nekk ci Sénégal laajte ndaw yooyu yan ndaw la parce que ndaw yooyu dañu war a mel ni ndawu Dakar yi mbala boog ñu raw leen ndaw yooyu dañu war a mel ni ndawu Thiès yi wala ñu raw leen waaye munuñ ne heure bu ñu jógee ñenn ñi jog pour gàllankoor ñi donc mbokki ñombatu mbokki département de Foundiougne mbokki Kaarang docteur Abdourahmane jàllo ak madame Dieynaba Touré ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci couverture médiatique bi nga xamante ne ñëw ngeen def ko ngir askan bi mais ngir gox gi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf voilà kon euh, nu ñu ko waxee mu nekkoon le docteur Abdourahmane Diallo euh, nekkoon en direct pour benn conférence de presse euh, docteur ñu gis ne pratiquement da nga def benn situation par rapport ak sa début jusqu'à la fin bon mais danga ko campé. waaye tamit jafe-jafe yi nga gis si biir euh, département bi ak lépp li nga xamante ne tey am na ñu la ko waroon taxawee te taxawee wuñ la ko mu nekk benn manquement euh, xëy na si ni nga tëjee dootuma si ñëwaat parce que dafa mel ni tourné nga page bi suñ bëggoon xam rek tey lan mooy avenir docteur ci li nga xamante ne mooy euh, politique ak nan la ko bëgg a taxawalee lan nga ciy tontu parce que ñi lay déglu tey soxla nañ xam nouvelle ère bi nga xam te ne tey kii le leader ou bien l'honorable député docteur Abdourahmane Diallo war na fa teg tànkam pour ñu mun laa xaar lan ngay tontu. merci merci Diamantin euh, par rapport ak euh, question boobu dinaa continuer sama yoon politique wala duma ma ko continuer euh, la dafa waxoon ne. Et euh, c'est toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse maanaam toujours dañ naan mënta ne ba ñu def ko maa ngi ci yoon bi wàccuma ci yoon bi muy neex maa ngi ci yoon bi muy naqari maa ngi ci yoon bi parce que sama askan ñooy jooy ne amuñ sama gox mooy jooy ne amut ñu ngi ci terrain boobu te suñu engagement ñaari mbir moo ko lal muy dëgg ak njub fekk dëgg ak njub mu ngi ci ñun dinañ continuer di politique bés boo leen gisee lu waroo ak dëgg ak njub jàpp leen ne docteur Abdourahmane Diallo ak ñamu àndal bàyyi nañ politique léegi nag ñu ngi ci coalition aar ci coalition aar la ñuy continuer di def suñu liggéey Jama merci si sa question bi mbokki département bu fu Foundiougne mbokki ñoom mbaato mbokki Kaarang képp ku bëgg a jàppale docteur Abdourahmane Diallo muy ndaw di mag góor ak jigéen jàppaleen ne tey laa gën a taxaw temm pour liggéeyal sama gox tey laa gën a taxaw temm pour liggéeyal sama askan waaye nag li ma bëgg a wax Ibrahima Diop mooy na xam ne loolu da koo donn Kaarang dafa mës a jël ndaare ci élection man docteur Abdourahmane Diallo bi ma demee fekk ji Macky Sall si la Kaarang door a jiitu sookoon amoon 67 virgule 92 pour cent ñu ngi door a am 26 pour cent muy Macky Sall nag ak ñamu àndal dinañ xam ne gox bi waa gox bi ñooy tànnal seen bopp ñooy falal seen bopp keneen du leen tànnal keneen du leen falal Ibrahima jóob loolu bañ ko jaaxal mu xam ne loolu cosaan la fi eh, ñaareel bi mooy mu góor góorlu xam ne ñun ni ñu amee ay noon noonu la amee ay noon te noon yooyu jóg tey moom amaana bokk na ci ñu doon jàppale noonu yooyu noonu donc Ibrahima jóob frère nga defet nekkut lu neex a muñ waaye nag kuy wut mooy ñàkk comme que yàlla ñàkk noonu la demal ngembuwaat nga xam ne askan bi am na lu ñuy xaar gisaguñ ko amaana buñ ko gisee boo leen woowaatee dinañ la fekk ci parce que tamit sa ndam mooy suñu ndam kaarang dem ci kanam mooy suñu avantage kaarang bu tardé ñun ñëpp koy dund parce que bu ñu amul dispensaire bu normal suñu njaboot ak suñu mbokk dinañ ko dund bu ñu amul marché bu baax bu ñu amul garage baax lépp ay jafe-jafe la yoo xamante ne ñun ak yow ñooy ànd dund ko kon lañ lay wax mooy nga bàyyi xel population bi déglu ko bu baax mais aussi nga moytu ñenn ñi ñi nga xamante ne seen intérêt cote moom moo leen di indi nga nekkal Kaarang nekkal waa Kaarang nekkal Ñombaato nekkal waa Ñombaato nekkal département bu Foundiougne nekkal population bu fu Foundiougne parce que tamit ndaw nga eh, liñ la yen diis na waaye nag boo moytoo ñenn ñi déglu ñenn ñi rek yàlla mun na laa sutural eh, li may daanelee mooy eh, di la ñaax rek ne la bon courage parce que jaaroon nañ ci loolu la ñu gars yi souhaité woon bon courage lu mënutoon a ñàkk la am na waaye nga jàpp ne heure boo soxlaa conseil ñu ngi fi te ki nga xamante ne jël na kaddu fan yi di wax ci wàllu ndox mi dañ koy wax ne yéex na wax ci ndox mi ñun waxoon nañ ci ndox mi ba ñu dem ci tribunal xeexaloon Kaarang tey mu bëgg a récupérer combat ndox moomu noonu e, yéex na ci e, leneen li mooy wàllu ticket mille bi e, gomis moo gomis ñoo fi def juróom-ñaari at presque parce que def na fi juróom-benn at ak juróom-benn weer mosul wax ci wàllu cinq mille bi bàyyi ba génn di ci wax xanaa boppam la doon aar caaxaan baaxul nañu bàyyi askan bi ñuy nax liggéeyal suñu gox Pape Ibrahima Diop du courage et bonne suite jërëjëf